jox ko jox ko. xaaral parce que ñi ma gis. attanuñu avocat ñu Ousmane Sonko. mais bu ñu fi toogoon itam amuñu droit la parole. même bu ñu amul doole. amuñu droit la parole. non parce que xam nga. parce que seen client ñëwul ku mel ne mm. ay si wax. da ngay gis bu waxee commencement du cohérent ak fu muy fini. la mm. kii wax du cohérent ak kii. Mm. cest à bon avantage euh, avantage wu euh, ñoom la. mais tey jii bu Ousmane ko teewoon ak avocat yi. non xajuñu si ñun. non parce que boo xoolee euh, seen coefficient mental par rapport ak ñi nga xam ñooy témoins yi du benn sax parce que boo xoolee même maître El Hadj Diouf a waaw donc bu avocat Ousmane Sonko yi taxawoon donc ñii duñu sax fanaan mhm. parce lii boo xoolee arrangement parti bii la mhm. mais ñi tey bu ñu désisté woon sans Ousmane Sonko ñoo taxaw rek wax ñu nii rek mhm. non y a beaucoup d'erreurs parce que erreur boobu rek la gars yi defoon il fallait que ñii ñëw affronter ñii parce que ñii bon amuñu doole boobu quoi amuñu kilo rek mais si si Mamour Diallo otoom bi waxoon ni moo jëli kii bi foofu leeral nañ fi loo xam ne man ma ko woon ndax dañ ne woon otoom Ousseynou moo dem jëli Adji Sarr yóbbu ko hôpital loolu wax dëgg le professeur même le médecin bi posé nañ mais euh, am na foo xam ne nangu fa répondre El Hadj Diouf donc fi ñu ko fi ñu ko laajee dafa ne la ndax euh, test ADN bi <laughs> est-ce que euh, ci biir test ADN bi ñu defee test bi est-ce que am naa spermatozoïde spermatozoïde prélèvement est-ce que du prélèvement voilà donc il a répondu que temps bi test bi ñëwee amoon na ay experts yu nekk parce que xam nga foofu leerul. Hmm. waaw parce que foofu posé nañu yoo xam ni moom il n'a pas voulu répondre nee na li mu doon wax wax na ko donc xam naa devant ses avocats li mu amul avocat yooyu moo tax répondre ci affaire yu loo xam ne conséquence mën na la law donc foofu tamit